Ousmane Dia tey moo nekk ci régie bi Ngaye Gueye ci euh, réalisation bi euh, Moussa nekk ci cadrage bi euh, Ndaastu moom daa am këru liggéeykaay boo xam ne da ko yor xale boo am jom moom moo ko jiitee ñu yëngatu nag si wàllum set setal Mohamed Diop moom gëstukat la jàngalekat la si wàllum lasraar Ndaasu di la nuyu la dal la ziar. maa lay nuyu monsieur Tounkara di nuyu ki ma bokkal plateau bi di nuyu téléspectateur Thiandoum. macha allah Thiandoum séeréer la. Mm-hmm. naa fi. non dégg ma boobu. gàlle. non futum na laa dégg. Mm-hmm. loolu mooy la. futum na. séeréer saafeen la. ah moo tax man ah d'accord <laughs> séeréer yi euh, sama mbokk euh, Chine yëpp ma leen ma leen di ziar Mohamed di la nuyu la ziar. baada auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi sawi ridwan wa tamkin ila yawmi din rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sadid lisani nawir ginaani safil amaan wasil bara sëñ Mamadou Sy Tounkara ñu ngi leen nuyu di la siyaar bu baax. merci Thiandoum yow euh, sa këru liggéeykaay bi yow ndaw nga. depuis mhm. kañ la. depuis 2021 lañ ko créé. daaw. waaw euh, si lan ngeen di yëngu. Mm, ci wàllum nettoyage. Euh, yow ak kan yaa ngi ko sànc. Mm, dañoo nekkoon ci benn dañoo nekk ci benn école de formation bu ñu tuddee ESM e Afrique. Mhm. Euh, en 2021 ñu ne pourquoi pas créer benn entreprise boo xam ne ça sera 100 pour cent ñun ñëpp école bi ñuy former école d' entrepreneuriat la. Mhm. et après ñu waxtaan si ak waa administration bi ñu appuyé ñu si. a créer entreprise. ah loolu moom am na solo su fekkoon euh, tey école de commerce yeeg ñoo ñëpp euh, dañuy euh, xiirtal étudiants yi. Mhm. ñuy amal ay këru liggéeykaay tàmbali ko léegi léegi léegi. Mhm. loolu dina leen jox fit léegi bi ngeen ko tàmmalee. maanaam lan ngeen gis est-ce que marché bi ubbeeku na nan lañ leen gàttandoo. en fait xam nañ ne dëkk bi ñu nekk am fi stage rek c'est une chose très compliquée waxatuma la nga am fi liggéey mm-hmm. looloo waral ñu ñu ñu am idée bu création d'entreprise boobu euh, puisque ñu ngi doog a débuté nag mm-hmm. ndaxte amagum ngeen marché si ndax suñu école école bi ñu nekk muy ESM ESM Afrique ñoo géré lépp lu nettoyage foofu macha ngeen signé contrat ak école bi si léegi ñaata nit ngeen di liggéeyloo Hmm? fi mu toll nii ñaata nit ngeen di liggéeyloo. instant yi kuy nettoyer école ba kenn la mais def nañ ay demande d' ci yenn dans entreprise yu bëri comme euh, Sénélec Euh, port autonome de Dakar. ak yeneen même 2STV fii sax. mais léegi yéen bi <coughs> ngeen ko tàmbaleeg léegi. Mhm. Euh, marché boobu seen école rek ngeen amagum comme marché. Oh, ah wàññi si wàññi si benn lay euh, tàmbalee mais day wane rek ne xale yi dañu am jom te ñoom xaaruñu kenn lii doon ko mës a rëccu ndax boo leen tàmbalee nekk étudiant rek am sa këru liggéeykaay loolu moom. Mhm. da lay ubbi loo xam ne. Mhm. ëllëg tey li nga bëgg mu leer si bopp ñëpp lan la ndeyastu. en fait dañu nekk ay jeunes comme Euh, soxla nañ tamit ku ñuy jàppale. Mhm. maa ngi lancé appel yeneen chef d'entreprise yi yoo xam ne soxla nañu suñuy prestation mhm. euh, di lancé appel képp koo xam ne mu ngi ñuy suivre à travers 2STV mhm. mu jàpp ci ndax ay jeunes lañ ay te tamit nekk jeune am idée boobu il faut que ñu am ñu ñu ñoo xam ne dinañu ñu accompagner ba ñu mën koo réussir ndax suñuy moroomu étudiant tamit mën a gis ci loolu mën a macha allah tamit bañ a xaar pare formation di doog a dem wuti ay stage feccum feccum liir boo gis rek maanaam dafa am euh, keroog dama toog rek. Mhm. man sama émission bi nekk doy mhm. waa FBI woo ma. Mamadou Sy Tounkara ma ni waa ñu na FBI ma ni FBI. mbaa <laughs> jàmm. ñu ne waaw waaw euh, dañuy seetaan sa émission bi. Mhm. am na solo lool. keroog am na ndaw loo dalal. muy wax lu am solo. Euh, dafa am liggéey bu ñuy def. dañoo bëgg ndaw loolu nga jox ñu ay kontagam. ngir ñu boole ko ci liggéey bi. ma ni ah, ah loolu loolu jàmm la waa FBI yi vraiment gars yi euh, big up because you guys just uh, making it happen and uh, this is you know great to to be part of this endeavor. Mm-hmm. Euh, Mohamed Diop. yow si lasaraan nga yëngu. aywa tey li nga bëgg leeral lu mu doon. waa ñun de dañoo gëstu woon xam-xamu lasaraar ginnaaw bi ñu jiitalee na xam-xamu diine. Mhm. ndax baddu ku la am de rek mooy diine. ginnaaw bi ñu xam-xamu diine ba noppi jàng alxuraan dañoo gëstu tamit ci wàllum xilmul asraar ndax suñu maam ci wàllum ñaan ci leen leen fekkoon ñu du ko def waaye ginnaaw suñu tubaab dafa wax ne yaa maxsara subaani in xiftum xajal fa xaddimu taxal lu man xalaa xamal maanaam bala ngeen a jiital dara ni ngeen ci xam ak xam ni ngeen ci xam ba noppi ngeen doog caa dugg. maanaam daal yow nga ko ñaata at nga koy gëstu waaw ginnaaw bi ma mokkalee alxuraan ba noppi gëstu naa ko ci lu toll juróomi at yoo xam ne mokkal nga mën nga tari yow baxar ba naas waaw def nañ ko nag nga bind nga ko bi beq naa bind naa ñaari kaamil benn maa ngi ko jox si Mourtala Moussine Sallou benn bi si am sa laa ko ah, macha allah macha euh, gis nga doxalin boobu waa ñoom ñoo ko am ci àdduna bi hmm. euh, nga xam ne nit pour nga wane ne yow mokkal nga alxuraan danga koy toog yow rek nga ko ni ñuy woowee beq hmm. nga bind ko tàmmalee bisimilah rahmaani rahim euh, Baxara Ali Imran Nisa Mayra jëmali euh, suratu naas yi te loolu moom euh, day dëgëral xel te day ubbi day ubbi ay xel léegi Mohamed hmm. li nga bëgg tey mu leer naññ si bopp ñëpp lu mu doon. waaw ah, xam nga borom bi subhaanahu dafa wax ne hmm. falaw laa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun li yatafaqqahu fi diin wa li hmm. yunziru qawmahum izaa raja'uu ilayhim la'allahum yansaruun maanaam loolu ban saar la ne. loolu mi ngi nekk solo tawba. loolu wér nga wax. dégg nga dafa wax ne borom subhaanahu dafa wax ne. amaan xeet wu nekk su fekkee da nga dem jàng bu ñu bu ñu delsee nañ xamal ña xamatoon moo tax bi ñu delsee ñu bind téere bii. ci bii ñu ko tuddee Tuhfatu Tullaab. Hmm? dafa am tomb numéro un. waaw ak tomb numéro deux ak tomb numéro waaw. Hmm. am na beneen nag boo xam ne ñu ngi ko tuddee docteur Tawadi. waaw bu dee docteur Tawadi boobu day jàngale wàllum xas wàllum reen wàllum sunguf wàllum bant ndax lañ ci mën a ndax lañ ci mën a. Euh, euh, fexe ba am njariñ bi maam ndax nit ki mi ngi tawat fu ne mu wër fa mënta wér te fekk ne la ko war a faj mu dul téeméeri dërëm est-ce que te borom subhanahu wa taala dafa wax ne rabbana maa xalaqta haaza baatilan suñu borom bindu dara ci neen bind rek am na lu tax est-ce que ñu bindaat nag beneen téere nag boo xamante moo leen tuddee tox fa ak tulaab muy boobu nga yor noonu mhm. boobu nag wàllum xel mu asra lay jàngale waaye dafa wuuteeg yeneen téere yi nga xamante moom lañ bind ñoom maanaam soo soo bindee xaatim sàngam boole ko nangam mu jëriñ nangam loolu xam nga loolu xam-xam hmm. léegi nag téere bi li muy jàng mooy xawaaxidul asrar ni ngay def ba mën a ñaanal sa bopp moom la lay moom la lay jàngal xam nga xawaaxidul asrar dañ ko tënk ci juróom moom la wekkat waxoon ne xawaaxidul asraari xamsatun bada xelmul xisaabi wan nujumi sarmada hmm. ramlin kasal aw faaxi kon mu tabixa isma rahimi laa tasal mu tabixa léegi moom téere bi boo ci duggee hmm. dalay jàngal ni ñuy xisaabee dalay jàngal li ñuy wax xaatim waf musallas musalas da la ko jàngal ni nga koy daggee ba ni ngay peese mu mën a wér da la koy jàngal dalay jàngal xaatimu Suleymaan dalay jàngal dañuy xooli ab sëy dalay jàngal euh, ba tey ni ngi génnee rawxaan hmm. dalay jàngal xaatimu almurabba xeeti xaatim yooyu yëpp da koy jàngal nga xam ne képp koo xamante ni am ngoo yow da ngay mën demal sa bopp tey yow mii nga xamante yow yow mii nga xamante ni maam maanaam euh, ñaanoo defoo dala hmm. boo jëndoon téere bi suba suba ba la neexam nga tàmbali ñaata ndax danga koy daal di xam incha allah man mi nga xam ñaanuma ku la ñaanu. yow ñaanoo comme ça addu'a moxsil ibada. déedéet addu'a. moxsil ibada. luy moxsil ibada. maanaam daal mooy euh, fexe ba mu déedéet déedéet Tounkara noonu addu'a moxsil ibada lañ wax. waaw loolu lu ma wax yow ah, kon damaa juum moxsil ibada damaa wax. damaa juum léegi léegi yow ñaan gi may wax ak la sala daa bokkut. yow boo ñaan da nga tàllal nii sa loxo ñun bu ñaan day jar ñu xam xisaab te yow xamoo xisaab xam nga ku la wax loolu. xamoo xisaab. noo ko xamee. moom ma xam naa xamoo xisaab. ah wax ma noo ko xamee. man bi ma la tiimee laa xam ne eh, Tunkara xamoo xisaab. kon xanaa kon ni ma tiime nii. waaw yow xanaa xam nga fu ma dëkk bon. déedéet ba ma jiwoon xam-xam ko <laughs> soo jiwoon xam-xam rek naa xam. xam nga ñaar ñaar ñaar dégg am sama ñaata bàjjan laa am. yooyu yëpp bu ma ko naa xam ko. Ah, wax ma ko. ndax wallaahi comme bi nga ma tiimee nii xam ne xaw ma xisaab war nga xam ñaata bàjjan laa. Tounkara man moo la wax ñaata ma dese si kaw <laughs> yëpp jëru ko tey dama nekk. ñeme yàlla nag xam xamul tax xamul tax xamul tax. <laughs> xamul tax suñu toog dafa xam ne. si ma sataroo. fa yaxtika eh, maanaam ay bi bu ko bu ko ko bu ko wuññi moo tax man du ma nekk fii naan la lii ak laa lii ak laa waaye tey boo ñëwoon sama kër. sa dund ma wax la ko. Eh, sondage su. Mhm. sa message lan la Euh, di lancer appel ñëpp ñu jàpp ci ndaxte soxla nañ ko instant yi euh, di lancer appel aussi les jeunes hmm. ñu bañ a xaar emploi ci gouvernement bi wala ndax instant yi état mënul jox euh, ñëpp emploi di ko ku nekk war ngaa mën a xool li nga bëgg sa ambition nga nga nga créer sa propre Euh, gis nga euh, li ngay wax nii euh, loolu dafa am solo kenn ku nekk mën nga créer sa entreprise. Mhm. tuddee ko sa yaay. tuddee ko sa sœur tuddee ko sa tuddee ko sa bopp ak yooyu. Mhm. loolu dafa am solo mais gis nga liggéey. mun mhm. na doon ñëpp war a mën a liggéey. parce que du liggéey bi ñu lay fay rek mooy liggéey. am na liggéey boo xam ni. kenn du la fay. waaye mën nga si fayeku leneen loo xam ne. looloo loolu la si génn man fii 2009 ba léegi maa ngi toog di def télé. weer mësta dee. ñu ne ma dërëm bi yaa ko fi moom kenn fayeku ma waaye leneen la ma si am moo raw fuuf fayeku sëñ bi loolu lasraar laa mu mu doon <laughs> yow nga léegi eh? bu dee émission bi na nga def nii rek te kenn fayu la ah déedéet émission moom kenn fayu ma mais eh, non jàpp naa si dara parce que man. sama participation yow nga fayoo ko Tounkara maa ngi jëloon nga fayoo ko yow yow yaa la yor fa may jàngale. fayoo ko waaw mu ngo loolu lay na def yow yor nga fayoo ko. non dama ni. nit ah. mën na def liggéey. Ah. te kenn du ko fay dërëm si liggéey boobu. mais mu fayeeku neneen. xam nga tey sëriñu daara yi ñu ah. bëri ko fayakuwuñu mais seen participation la si ah. tàggat xale yi tàggat ndaw ñi préparer leen ba pare surtout nag liggéeyal yàlla tamit waaw dëgg la aywa kon maam siroo ngoog <laughs> aywa ñu ngi lay dégg yow sa message bi doon man message bi ma bëgg a hmm. mooy xam nga sëriñ da ci am ñu bari ñoo dañu dañuy woote wala saa te xamuñu ko hmm. te toog ci neen baax loolu du ñu rek waa njublan la te suñ Abdou Khadir Jeylaani dafa wax ne hmm. dala watu baat li saaxan wa dala watul xaq ila saaxan daane alxaqu saabitun wa amal baatilu wa in ala fa saaxin wa saafilu Sëñ hmm. wa amal baatilu wa in hmm. ala fa wa saafilu dana ko nguuru neen hmm. ay waxtu la ay ay waxtu la waaye nguuru dëgg la dem ba yomal xeyam Sëñ daana daane dëgg nag moom moo sax waaye ak neen lu ñu ko jag-jagal dafay daal di mujj neen waxul jaawal xaq wa sànqal baatilu inna baatila kaana saxuqa loolu fu mu teelu ma aaya bi mu nekk moom yaa teelu ma aaya fu mu nekk waxul jaawal xaq wa sànqal baatilu inna baatila kaana saxuqa xaw ne déedéet loolu léegi yaa ngi ni ma ma ma ma laaj na la ak doxam mu xool xibaar yaa ngi ni da xam xamoo ko de loolu yow chaque jour saa boo invité man maa la ko wax di déglu ma la saa boo ko wax di waaw yaa ko waaye da nga ko yàq waaw mais la kay damaa jum si kàddu waaye nag yow yaa aaya bi ngay wax nag war nga xam fu mu ne déedéet waaye damaa jum yow de juumoo <laughs> kon kon léegi da da non juum ak ñàkk xam du benn waaye léegi dama ko xamul waaw moo wax moo wax ah? looy fay ah dañ koy fay de. Ah, yow kon yow léegi télé bi fayu la waaw télé bi fayu ma yow ma fayeku la. déedéet te <laughs> da wax parce que xam-xam laa lay jox. non wax El Hadj Ndiaye ma fay la. xam déedéet El Hadj Ndiaye dafa xam lool. ah El xamul aay boobu fu ne de. non man yow mi laa yow bi xamul def moo nga war a mu fay la. beneen bi ma kaana zahuuqa loolu mi ngi nekk si suratul Israa. waaw suratul léegi ma ñëw euh, li bi ma bëgg a leeral. suratul Israa ban mooy suraat numéro ñaata si gis nga da ngay am problème ñun hmm. ñun alxuraan bi ñu ko jàngee jàngu jànguñu ay aaya ndax téere yi nga xamante moom lañu jàngee ja deful sax aaya far benn defut aaya yow nag sax boo tàllal noonu rek waaw defut aaya hmm. de hmm. day def bu ñëwee aaya dina am surat surat waaw ma wax la rek ah. aaya laa la wax aaya ak surat bokkul waaw d'accord naa léegi li ma wax ma leeral la ba noppi rek ah, ah. maanaam du su ne bu ñëwee ba jëm aaya day def ñetti tomb ñetti tomb yooyu moo wane fii la aaya bi ne waaye amul numéro tey itam ma wax la leen loo xamut. de saar bi la saar bi non yow man dama ne la ban saar la ne. yow da nga ne ban saar la ne. ci lu toftaloo ci ci alxuraan. xamal loolu li nga wax ne fu mu nekk. subhaanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haraam ilal masjidil aqsaa foofu la nekk. waaw loolu mooy suratul isra waaw mooy suratul mooy suraat numéro ñaata si alxuraan. mën naa ko bañ a xam waaye lu teewul moo alxuraan man waxuma la de xam nga ko xamoo ko. Tunkara xamoo ko boo xamul ma wax la ko. Tunkara comme ni ma la waxee aaya bële rek. Tunkara fu mu ne. Tunkara loolu indi ma fi. <laughs> xam nga loolu fi indi sama message la. non sëriñ du ma bëgg a leeral mooy. waaw sëriñ si ne am ak njub. ndax yaa ayyuhal lazina aamanu taqullaaha. Hmm. wa quulu qawlan sadiida. est-ce que. maanaam borom subhaanahu wa taala saar la ne. si sor suuratul ahzaab la nekk. suuratul ahzaab la nekk waaw. ahzaab mooy numéro ñaata. xaw ma ko waaw lii nag moo gën a maanu nag. waaw xaw ma woo. damaa bëgg nga bàyyi ma rek man. Israël mooy 17 Ahzab mooy naa ko jàng moom. ne de looloo ne. dama ne loolu ñi nga ne ñoom ñoom ma ko suñ du ma ko jàng. su ma àggee damay continuer sama sama licence bi <laughs> yaa li si amul taq la waxulu xaw na sa maanaam yuslih lakum a'maalakum wa yaghfir lakum zunuubakum wa man yuti llaaha wa dafa wax ne na ngeen ragal yàlla daane bu ngeen ragalee yàlla suñu borom dana yéwénal seen i mbir du ca yem dana leen jéggal te ragal yàlla gi dafa am maanaam eh, jëf ji yow dafa am lu muy waral mooy wal xase inna lillahi fi qawsi illa lasi amanu moo jëf jiw bu dee nag istixfaar maanaam jégalu suñu borom fa qultu staxfir rabbak innahu kaana xafaara yursili sama aleykum midraara léegi message bi a noox la nekk naa arsana nooxaan dégg téere bii nii dama ko bind ba noonu waxtu bi jàpp nañu jàllal ko ñu ko may ma rek ma ma jàllale bi ma te yàlla tax may ma ko rek dama la ko ñaan xaaral bu la te dama ko bind def ci xaalis bu bu bëri waaw waaye ñu ci bëri fi ne nii dañ koy peraat waaw ñii nii am na ci ñoo xamante nii euh, dañ koy def di ko copier di ko jaayal. ah loolu nag loolu nag jubati la moom xam nga loolu day yàq te man ab suñu daara am bëgg naa dara. waaw ndax téere ñaar nga ko jaayee. 5000 laa ko jaayee. Ah, seer na nag. ah laa ilaahi li ma ci def moo gën a siyaat xam nga xaatim lu lu lu ko jàngale euh, bon léegi xam nga lu jàngale xaatim xam nga lu ñu jàngale xaatim bët bu nekk cinq mille lañ ko ko njukkal Mohamed Diop si lasra lay yëngu waaye nag téeréem bi daf si wax lu am solo nag nañ bàyyi di pirater téere jàmbur yi ndax loolu euh, vraiment njubadi la tudd ak euh, ndeesu càndoom ñoom la ñu toogaloon ni Sénégal ca kanam Ousmane dañuy may benn xaar nañu dugal su yeneen ñaari gan ci Sénégal ca kanam